Moreno. c'est bon ay ca waa ba léegi rek ñu ngi ak beneen combat rek bu yaaram aar tëgg ni ma leen ko waxee rek yaaram aar nag ah ñëw nañ nekk gan ci làmb ji waaye yaakaar naa ne ñu ngi innové ñu ngi def ay plateau yu ama ama am solo yoo xamante ni te yaakaar naa ne bokk na ci liy na ci liy protéger promoteur parce yi ñu ñëw te yaakaar naa ne say jàmbaar ko boole si bés boo xamante ni te yaakaar naa ne Pape Ndoye Coly Faye si la lay bëgg waaw auzu billaahi mina seytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bañ sant yàlla julli si ana waaw ndekkee gu ma nag parce que mhm. naa fi ñëw lool mhm. parce que dañu waxoon heure mhm. donc pour respecter heure boobu ñu teel a ñëw waaw mais ginnaaw bañ sant yàlla julli si nante bi ñoo ngi di xam nga di nuyu ñi fi nekk ñëpp mbokk internet yi di la nuyu xam nga di nuyu tëngeej bi ma jógee di nuyu waa parcelle di nuyu waa Bargny di nuyu àdduna yëpp di nuyu waa Fandène nag sama waa dëkk maa ngi leen nuyu bu baax baax guy gi jaar naa la maa ngi lay delloo ziar bu baax a baax a baax ginnaaw bañ sant yàlla julli jurante bi ñu sant suñu ñaari waajur di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Saliou suma yaakaar tey ëllëg di nuyu presse bi maa ngi leen ziar bu baax a baax a baax di la nuyu yow suñu mag suñu grand suñu xarit di nuyu la Diop xam nga di nuyu suñu ménage race di nuyu waa Pikine ñëpp 200 pour cent Pikine ñëpp maa leen nuyu bu baax a baax a baax di leen bëgg di leen jox seen waa ci waay yaay eh, di nuyu suma adversaire di ko ñaan jàmm ngeen war a bëri nag le 18 incha allah rabbi xam nga ki nga war a bëri waaw waaw xam naa ko bu baax a baax a baax. xam naa ko bu baax te lamb moo ñu boole. du dëgg. leneen boole ñu quoi doomi mbër rakk mbër. waaw doomi mbër rakk la. man Pikine laa juddoo Kapaaru Boña laa juddoo Ama Baldé Eumeu Sène dara lamb jaaxalu ma. Hmm. waaw. nee na dara lamb jaaxalu ko rawatina nag yow. waaw kon kii bu ko dara lamb jaaxalul xaw ma man lu ma war a def quoi. te hmm. moom ni ma xamee man noonu laa ko xamee. xam xam naa ko bu baax ko ñoom falaa laa nekkoon sama papa fa laa amoon kër ñetti mbaar fii foofu lañ dëkkoon. Ah. kii ab tailleur la. bu ma saan bu école daan tëj ma daan ñëw foofu di liggéey bu sama tuwee xottee ko moom moo ko daan ñëwal ah. kon man xam naa ko bu baax ñëw dugg ci làmb moom loolu loolu la ba tey est-ce que nekkul si métier bi ba ah. naa ko bu baax daal ah, sa waay xam na la de waaw téer laa juumul ma xam naa ne mu ngi may topp bu baax a baax a baax mais na topp topp topp topp topp na moytu dugg fu mu war a dugg rek waaw lamb du loolu quoi xam gi mu la xam du du la handicapé non lu may la la may handicapé man may xale bu ndaw hmm. di entraîné ku débuté lu may handicapé ci liñ ko wér nañ ko wér foofu na ba 18 waaye coow li ci bëndub teen bi gaañ amul baat la rek waaw waaye si bindub teen bi gaañ amul baat alors wax la rek gis nga nit bu amee moom contrat da ko war a topp man loolu laa gëm yee man kii dama koy topp yee sama téléphone moom forom laa jël def ko profil pour saa ma taalee rek xam ne man kii laa war a jàmmaar lool ah. xam ne am na lu lay ne am na lu may xaar am moom contrat moo tax ma koy top di ko lijjanti mhm. su ma amoon soxla ba biir këram dama fay dem jëli ko ñëw wala ko ñam waaw si contrat bi rek moo ñu liyee nag moom le 18 waaw li may fas yéene moom le 18 mooy ñëw comme li ma jaaxal. moom lan la la xool si man ba ñeme ma wala man ban ñàkk fayda la gis sama kanam ba ñemee jël sama avance man loolu jaaxal na ma trop. Ah. yaakaar naa nag si ñaari combat yi ma jógee nii moo ko bëree nii. man yaakaaruma ne war na ma mën a ñeme quoi man laajal ma ko loolu noonu. waaye nee na waroo ko ñeme de. xam nga lamb dafa xaw a doy waar. Mm-hmm. lamb mënoo ñëw ci benn affaire rek. Mm-hmm. ni diw ñeme ma wala lii wala la la mi ngi ni laaj ko du mu bàyyi ma fenn ay adversaire lañ fi woo barke alxuraan ñoo xam ne biir parcelle lañ dëkk barke Seydina Mohamed li ma la ba amul yàlla moo ko daan biir parcelle. waaw ñu delloo avance barke alxuraanu karim. ak yàlla bu ma ko daan. nee na ay parcelle euh, avance am waaw yaa ma dégg nga sax li mu la wax. waaw mais loolu moom ñoom la loolu moom ñi ko delloo avance bi la man ñaata nit ñoo ma delloo sama avance ñaata nit ñoo ma delloo sama avance. mais loolu moom ñi ko delloo avance am la quoi ñoom la concerné ñoom ñaar. mais loo fas yéene sa diggante ak moom. non man dama lay lan yow lan yow kii xam nga la moo tax mu ñeme ma. sama ñaari combat yi ma jógee nii sax ma am nu mu fa demee moo tax mu ñeme ma. parce que daa am daa am loo yaakaar xam guy gi xam raay ragal ñëw ci moom. laa jox cër naw la si li ngay bëree. Hmm. wala mu dox loolu na su ma nawle nga. Hmm. du ma la manque de respect du ma la def dara mais bis yi man ñoo ko bokk. nga la buñ nangu kenn ëppale ñu si. Hmm. nañ bokk cercle bi buñ ko séddoo ak ñoom buñ ñëppale ci dara. loo fas yéene sa diggante ak moom. si dégg nga ma bu ñëppal dara ci bisu mën a yow mobiliser ma mobiliser ñëw dëggal suñu boobu. quel meilleur gagne samedi lay tombé dimanche ku nekk bu daan dem seet sa morom dimanche bi léegi ñu xool leneen. kuy seeti morom. jàmbaar yaa ngi am combat bu métti barke alxuraan yàlla ñu yàlla ma talafi ci li nga yaakaar ne bañ naa ay guy gi téer laak ñool ma ñawal la. nee na nga ñëw ma ñawal. waaye kii déggoo li ma la xanaa yére bi may indi esaat bi may bëre seeg moom bu ko neexee ma jokkati si mu ñool ko ko loolu problème lamb loolu wóorul de la moom mu ngi wax boobu léegi lamb ko teg ak fi nga ko teg fi nga ko teg hmm. lamb ji tegu ma ko fenn fudul si entraînement ànd ñëw te combat bi nii maanaam moo ngi wax si côté mobilisation hmm. ki si ëpp mbooloo yàlla na ko yàlla may ndam combat bi dama ne la cinq bloc bëgg ak dix car kese maa teg si loxo monsieur le maire Omar Cisse hmm. mu jëndal ma cinq bloc yëpp wax ju bari yi waaw maa ngi woo ñëpp nag xam nga ñu ñëw jàpp si combat bi jënd si jënd billet quoi parce que ñun mobilisation rek moom la ñu di soo waa bergerie ak lu laay sam père Fodé ah, ñoom Alsane ñoom Badou ñoom lamin ñoom Zal ah di si woo président Lamine Diop waaw président Neo Vision mu ñëw jàpp si jënd si ticket di si woo Adja Roxee Daba Diop suñu député bi ah di woo sama ndijaay yëpp nag di jaraaf Tanor Kane le grand jaraaf de Rufisque et département maa ngi lay woo ñoom Serigne Ibrahima waaw ñoom Ibrahima Coxo di ñaanal tamit sama ndijaay yi nga xam ne ñoo wàññeekoon Baye Issa ak Papa Djibi yàlla yërëm leen xaar leen aljana di woo Père Ib Diagne di woo tonton Mandiaye Meng Mandiaye Meng laay borom Espagne borom Thiawlène ak xaritam Mandiaye am di maa ngi koy woo di woo Faya bu Ñoojoor di woo Véligno Ndiatop mon frère di woo euh, grand Ibou bu Petit Lo Tamama Diop famille Mbène Ngone bi yëpp di ko teg ci loxo sataan nag di nuyu sama tante yëpp di woo waaw Ada Colobane mu ñëw jàppaat si Ousmane Ndiaye yee ñuy togg sama añu combat bi yëpp maa ngi leen woo si combat bi jàpp si bu baax a baax di Bunaama Jugo Moussa Samb ñoom Maam Ñaaw Laay Njaay xam nga di woo nag petit waaw ñii ñëpp dañoo war a jàpp si combat bi mm-hmm. petit loo maa ngi koy wax combat bi sa combat la mm-hmm. Karbala Ndoumar ñoom Samba Sow ah ñoom Zul waaw ñëpp rek Ronaldinho Eumeu Sène Junior di ñaanal tamit Cheikh Super Jamono Eumeu Sène Junior ak waaw Ronaldinho yàlla may leen ndam si le 11 bi quoi di ñaan aussi yàlla may ma ndam si kaw guy gi mi incha allah. koy woo guy gi. waaw damay delloowaat rek delloowaat waa Pikine bu baax a baax a baax a baax. Pikine sama gox ah 200 pour cent Pikine maa leen di woo di woo boo ñaa suma mag suma papa suma xarit suma kilifa maa ngi koy woo bu baax a baax a baax ci combat bi di woo Sokh Sokh Boy ma lay woo a a baax ci làmb ji Eumeu Sène Ama Baldé hmm? di wax combat dafa may pare yu ma koy bëreel péeji faramareel faramareel maa ngi lay woo ci combat bi combat bi la yow laa bu baax a baax a baax di yaay Bigué ci yee sama yaay Bigué maa ngi woo ci bu baax a a baax di woo gars yëpp nag xam nga waa Pikine mën naa ne ñoom Mame xam nga Mame Moussa Galas mbake xam nga di nuyu Bamba Bamba Bamba borom automobile Bamba combat moom laa koy bëreel xam nga xaaral rek mhm. ah, woo gars di woo Babacar doomu réew mi maa ngi koy woo ci combat bu baax baax baax baax baax di woo sama waa koñ di woo borom la ci sopp Bagnès xam nga Moussa Gueye Moussa Ndiaye xam nga gars maa ngi lay woo di woo Madaar Diagne borom di Iwulaay borom di fond sama mag sama papa sama xarit grand Iwulaay Iwulaay Diagne maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax a baax a baax a baax di gën a woowaat nag Bamba design di woo sama mag Aada Mbaye sama mag sama mag sama xarit maa ngi koy woo ci combat bu baax a baax di nuyu sama président Modou Gueye Modou Gueye président AS Pikine maa ngi lay woo ci combat bu baax a baax a baax mbokk yaay As Gueye Modou ko Modou doomu daa ñoom maa ngi lay woo ci combat bu baax a baax a baax ñoom ñëpp bàyyiwuma kenn waa Jidda Jidda sama gox Jidda sama ñor maa ngi lay woo ñëpp ci combat bàyyiwuma kenn nga ne koy woo waaw di nuyu rek xam nga petit la Assane Ndoye Baye Sall hmm. ak Go waaw ñoom nger ak Siko borom bote bi maa ngi nuyu ñëpp xam nga di leen ñaanal jàmm ñoom dañuy sonn si man ay ca bëgge moom xam naa présenté leen sax day métti mu yéen bu ak waasin tour jeune amateur wala boo góorandooy ak si ak structure am ñoo ko tëgg pour le 4 mars incha allahu rabbi maanaam combat Sa Thiès ak Reug Reug balaa ñu ko bëri fa la ñuy waxtaane combat bii waasin tour yéen ak ka nga xam ne nii moom mooy booy Sadio ak Batista xaaral ma njëkk ma njëkk nag ci waa Guédiawaye ndax kii Dakar Plateau la jóg kii moo ko fi dalal yen